إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المجيب الدعوات وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الداعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله الخطبة في رمضان والدعاء وكينا من سنة يا سبحانه وتعالى di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar ñu ngi seeri ni amul kenn ko yow jaam bu dul moom allahu subhanahu wa taala te war ñu ko bokkaale ak seen yàlla mi wuyu képp koo xamante ni ñaan nga ko ñu seeri ni suñu sang Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom mi képp kuy tàllal ay loxam di ñaan boroomam yàlla na yàlla jëm ko sëlmal ci moom fayal na ko moom ak i saxaabaam ak képp ku topp suñu bopp boobu ci di taxaw ñu ngi dénk suñu bopp mbokki déen nit ragal yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ne ay yéen ñi gëm ay yéen gaa ñi gëm na ngeen ma ragal dëgg dëgg ragal rek bu leen dellu si man lu dul da ngeen doon ay woy gëm yoo wommatu jëm di seen borom yàlla du ñeen daal ni ay yéen nit ñi na ngeen ragal seen borom di leen sàkk ci benn bakkan muy aadama alayhi salaam mu sàkk ci moom aadama xawaa mu def ci ñoom ñaar ay njaboot yu góor ak i jigéen yàlla mu ni na ngeen ko ragal te sàmm mbokk ak nga xamante ni mooy bi dox suñu diggante ndax yàlla moom nee na ñu ngi ñuy fugg di ñu bàyyi xel ci lépp lu ñuy def yàlla moom ñuy dénkaat ba tey ci alquran muy ay yéen gaa yi gëm na ngeen ma ragal tey wax wax ju baax wax ju sell loolu mooy tax man yàlla ma yewanal seen mbir te jéggal leen seen i bàkkaar yàlla mu ne képp koo xamante ni topp nga ko moom ak yonentam bi alayhi salaatu wasalaam boo ko demee nga jafe jafe bu màgg ba mooy yàlla dugal ñu ab jàll janna yàlla ñu yàlla defal mbokk yi suñu xutba tey ñu ngi ko fas yéene amal ci lii di weeru koor ak ñaan weeru koor ak ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni ñaan ci boppam mooy jaamu yàlla ndax lii di ñaan addu'a ki koy def moom dafay jëmmal yàlla di ko xamal ni lii may sàkk lii may tawal amul kenn kenn ku ko mën a saafar ku dul yow noonu it la yëgee ni moom mi ñaan ni ku tële la ku tële ci faj ay soxlaam wala mën a boppam dara moo tax muy dégg ay loxom borom subhanahu wa taala di ko ñaan moo tax yàlla subhanahu wa taala da ko lëkkale lii di koor ak ñaan ci alquran إن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إيام جايكم فرقان ناسيين كور كم دي مكو فرقالي وان تي خيري لن جيتوون ngir ngeen jële ci ragal yàlla ba yàlla di daaneel ca la muy wax ñaan la ko tëjee من وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يعلمني يا النبي صلى الله عليه وسلم فما جامني سنو لاجي أنا ما أنا ما فلاني يسألونك في القرآن نيونا في بربي بريد mais yàlla xul la ciy tegal yonente bi salaa sallam yasalunaka an ilmahid qul hiya aza yasalunaka ñëwaat na ci alquran ci ay bërëb yu bari yasalunaka an ilahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj bu ci nekk yàlla danaan yonente bi salaam wax leen ñii di la laaj de wax leen nangam mais lii di koor di ci yàlla daanelee di wax ci wàllu ñaan daf ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam sama jàmm bi mun la laajee anam man de ku leen jegelaa wax leen wax wax wax ko wax leen man ku ma jegelaa waaye yàlla moo ni leen moo ni man ku leen jegelaa te dinaa nangu ñaanu sama jàmm bi ku ma ñaane waaye mu ànd ak nag mu nangul ma mu ànd ak sama jàmm bi nangul ma nangu ko ci ni moom li muy sàkku di tawat ku ci tële la te ki ko mën kenn kese la mooy moom allah subhanahu wa taala yàlla mu ne boobaa dinaa ko wuy sama jàmm bi te dinaa ko defal li nga xam te moom la moom la bëgg mooy am jëf ci jamono yi ñu toll bokk yi muy weeru koor xol yi bu ci leneen nekkoon sax ci ay tap-tap ci kattoor wala leneen gis nga doomu aadama yi ni ñu dawee jublu ci xeetu jaamu yàlla yi ci julli yi ci naafila yi ci saraxa yi ci fegu seen làmmiñ seeni cëri lépp wuti na tàggat seen yaram ba ku ci nekk nangul na yàlla ni mooy allah subhanahu wa taala moo tax xaal boobu day yóbbu doomu aadama yi ci situation bu ne allahumma yàlla mu ko nangul ak ñaan yonente bi salaa sallam mu ngi wax mu ni salaasu salaasu daawaat la turat ñetti ñaan a ngi ni yoo xamante ni man yàlla dama ko delloo bi ci njëkk mu wax mu ni daawatul waalidi ñaanu way jur ci njabootam foofu boo delloo ci alquranul karim kii di xannata nekkoon soxnay imran moom ba mu wonnee lor moom ba mu wonnee lor la tàmbalee ñaanal doom wa id qalat imraatu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiul alim moom ba mu wonnee lor la tàmbalee ñaanal yàlla mu sàmmal ko li mu ëmb te bu wasinee yéene gi ci am mooy mu yóbbu ko ci jàngu ba mu nekk koo xamante ni kuy waarale kuy tegu ci yoonu islam di di jàngale yàlla dañ koy nangul lool te mbokk yi yemul ci ñaan boobu mu ñaanoon wante ba mu demee ba wasin la mu jëkk a def dafa léemu wàndam bi fa lamma wadaatha qaalat rabbi inni wadaatuha unsa man de yàlla wasin naa ko waaye de damaa ñaan mu nekk boo xam te ne kilimaan lay nekk di jiite di waare wante jigéen la def alaysa dakarka unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni uiduha biha wa durriyataha min ashaytan rajim ñaan la ci teg kon wuute nag lool nag suñu jamono moom boo amee doom li ci njëkk a def mooy da nga koy njëkk a foto ci clinique bi daal di koy envoyé ci réseaux sociaux yi pour xam ne yow am nga doom daanaka foofu moom lu bëri mën na faa tàbbi ci cet wala yeneen yoo xamante ne ay xeet ndol moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni ñaan yi nga xamante ne yàlla bu ko delloo bokk na ci ñaan woy jur ci doomam sa doom sikk bu mu mën a nekk ci moom ndax yàlla mooy kiy jubal yàlla mooy kiy wëlbati xolu jaam yi sikk bu mën a am sa doom bu jékki-jékki jaaxal la lool sax bul ko móolu mukk làqatul wéetal sa borom day yenteeg moom ñaan yàlla mu wëlbati ko teg ko ci yoon bi nga xamante ne mooy yoon jub ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaanu wayjur yàlla da koy nangu ñaareel bi mu ni wa daawatu saim ñaan ki nga xamante ni dafa woor ndax ki woor yaa ngi fegu ci sa dégg sa gis sa cëri daanaka sa lépp mu ngi tàggatu wommatu ci yàlla subhanahu wa taala ba ci li ngay lekk yaa ngi xool li ngay lekk ndax lu dagan la wala te yooyu yëpp dafay nekk ci condition yi nga xamante ne day tax doomu aadama bi bu taxawee ne allahuma yàlla déggal ko moo tax aleykum alayhi salatu wasalaam nee na ki nga xamante ne dafa woor ba ndogu jot mu toog tàllal ay loxoom ñaan borom bi subhanahu wa taala la mu ñaan yàlla dina ko defal ñetteel moo ni wa daawatul musaafir ki nga xamante ni dafa tukki tukki koo xam ne tukki ku dagal la ci bërëb boo xamante ni mosu faa muy yàlla kooku bu ñaanee yàlla subhanahu wa taala yàlla dina ko nangu ñaan mbokk yi lii di ñaan yàlla ci boppam mu ni afdalu ibadati du'a yonente bi salaa salaam mu ni yàlla li mu gën a bëgg ci xeetu jaamu yàlla yi ñaan ci la bokk te yàlla dafa wax ni wa qaala rabbukum ud'uuni astajibu lakum yàlla mu ni ñaan leen ma ma nangul leen lam ci teg mooy inna alladina yastakbiruuna an ibadati mooy ñi nga xam te ne dañoo rëy sax ngir ñaan yàlla mu ni ñun dama leen tàbbal ci safara wala iyasu billah yàlla ci boppam mbokk yi moo bëgg jaamam yi di ko tàllal loxo di ko ñaan alayhi salaatu wasalaam mu ni yàlla de dafay dafay kersawu ci jaam bi tàllal ko ay loxoom yaakaarul kenn ci ku koy fajal boobu la soxla ku dul moom yàlla di neenal ay ñaan allahuma jaalna min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana baraka allahu li wa lakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di selmal ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi sallallahu sallam mu ñuy waxaat ci xadis na ni ci ñi nga xamante ni dañuy ñaan yàlla te naan boobu léegi maa ngi ñaan te yàlla nañu ma li ma li ma koy ñaan mu ne am na koo xam ne ne bu tàllee loolu xoom ñaan dinaa ko may li ma ñaan am na koo xamante ni moom daf may ñaan waaye lan may ñaan gënul ci man gënul ci moom yàlla soppil ko ko defal ko ko leneen waaye bu gis li ko xamante ni moom la ñaan moom ndaxte nee na yàlla bi nga xamante ni yamxu llahu ma yashaau wa yahdi wa indahu umul kitab yàlla mi nga xamante ni lawhul mahfuz ba muy bind dogalu doomu aadama yi foofu kenn accédé wu fa ku dul moom nee na dina bind dogalam ci ab jaamam muy dogal boo xam ne ku wàcc wàcc na ñu ngi jóge ca lawhul mahfuz di wàcc ci wa jaam te mu war a nekk ab lox ci jàmm yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaan bi tasanteeg beneen dogal bi tasanteeg ñaanu kuy ñaan yàlla bu musal ci ab lor nee na ñaan bi di di bëreeg dogal bi ba ba yowmal xiyaamati dogal boobu du wàcc ci jaam bi te fekk ñaan la boo xamante ne dogal la boo xam du wàccoon ci jaam bi da koy wàcc mbokk yi ñaan la borom bi subhanahu wa taala di xamal ni tëlewul dara yàlla moo soxlawul ay moyens sax mbokk yi ngir fajal jaam bi ay soxlaam ndax kii di Zakariya moom dafa tolloon ci situation boo xamante ni mënatul am loolu mënatul am njaboot ndax mag la soxna si màgget ñoom ñaar ñëpp nekk nañ ci condition yoo xam ne kenn na mënu ci am doom te li mu bëgg moom Zakaria mooy bu dëddoo am ku ko wuutu kenn ku nekk ak ñaan yàlla si li la yàlla defal sakaa wuutu la Zakaria ñëw fekk Mariam ci mihraab bi ci jàngu bi ni ko yow Mariam fruit yi nga xamante ne fekk naa nga koy lekk te muy yarkat te fruit yii du fruit yoo xamante ni maa la ko jox te sax dafa nekkul fruit yoo xam ne war naa ñor ci jamono jii foo ko jëlee Mariam ni ko huwa min indillah yow sama sëriñ lii nga gis nii de yàlla na ci xanaa du yàlla moo ne inna allah yarzuqu man yashaau bi xayri xisaab yàlla moom mooy wërsëgal ku ko neex te soxlawul moom ay moyens pour réaliser noonu Zakaria soxlaam bi nga xamante ni jàpp na ne kenn mënu koo faj ku dul yàlla ndax doom la bëgg te condition yi réunir ci moom lenn mënu ko cee may doom nee na ci saasi hunaalika daa Zakaria rabba ca saasa la Zakaria yëkkati loxoom ñaan suñu borom subhanahu wa taala ngir mu may ko njaboot ba muy ñaan nag dafa dañuy ñaan ne ko yow yàlla mosuma laa dégg samay loxo nga gàntal yàlla foofu mu taxaw Zakaria taxaw di ñaan fa la yónni Jibril ni ko waxal Zakaria ni ko may naa ko njaboot dinaa ko may njaboot bu góor bi muy ñaan te du ma yem ci loolu man utal naa ko tur tuddee naa ko Yaxya doom ju ko yàlla wërsëgale daa indaale turam yàlla moo ko tudd ba pare ni yàlla ne ko ma dinaa ko def mu bokk ci nga xam ne yonent yi lañu doon mbokk yi est-ce que yàlla soxla na benn moyen pour réaliser déedéet noonu la yonent yi ñu jiitu woon seen delluwaay ci ñaan dong la woon yonent yàlla noonu ba mu nekkee di woowaa xeetam bi di leen woo di leen woo xam si inni daawtu qawmi laylan wa nahaara fa lam yazid duaai illa firaara te yàlla woo naa sama xeet bi ba sonn ci ñëw ñu gëm la waaye ñoom ñëpp daal dégg ñu tëx dañoo tëx ñoom daal nanguluñ ma wante lu mu fi lu mu lu mu lu mu jeexalee mbir mi mooy dafa ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu ni ko rabbi la tazar ala al ard min al kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara yow yàlla bu fi bàyyi kenn ndax ñu boo leen fi bàyyee ñoom la ñuy juri yépp ay jàmbaar la ñuy nekk yàqkat suuf la ñuy nekk bu ci bàyyi kenn lu dul ñi nga xamante ni ñoo def ci safinaan bi ci biir gaalam bi mbokk yi ayuba kadalik yonent yi jiitu yooyu kenn ku ci nekk ñaan nga sàlla woon ngir borom bi subhanahu wa taala di sottil say mbir di la yéwéne say mbir mu des nag yan condition lay tax yàlla di nangul jaam bi ay ñaanam condition bi ci njëkk mooy jaam bi faw mu nangu ni yàlla kese mooy ki faj aajo yi yàlla kese mooy ki faj aajo yi te ñun ay jaam lañ yoo xamante ne ñu tële lañ ñu lott lool ci mën a saafara suñuy jàngoro muy bi ci jiitu ñaareel bi mooy ngay tàllal say loxo di ko dékk borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla moo wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man yàlla de kersawu naa samay jaam bi tàllal ma ay loxoom yëkkati ay loxoom kon dafa bokk ci charte bu bokk ci charte yi yi tax yàlla nangul ñu suñuy ñaan mooy li ñuy dundee ñu fexe mu nekk lu dagan lu min al tayibat ma yàlla mu ni dee leen lekk ci luy tee yi nga xamante ni moom laa leen ko sëgale yow mi nga xamante ni sa li ngay yëngatu ay xàq ak ay riba moo ci nekk nga koy dunde di ko dundale sa njaboot ana nag nga yaakaaree yaakaaree soo xam ne allahuma yàlla dina nangu bokk yi mu bokk ci waxtu yi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waxtu yi ñuy nangoo ñaan la bu jaam bi wooree ba war a dox ak it guddi gi su demee ba xaaj ñetteelu xaaj bi borom bi subhanahu wa taala mu ne day wàcc ba ci asamaan si tiim ñu di naan sama jaam ñi kan moo may ñaan ma may leen kan moo may jéggulu ma jéggal la mu bokk ci waxtu yi nga xamante ne dañ cee nangu ñaan bis yi ñu nekk muy bisu aljuma ci waxtu yëpp rawatina buñ demee ba julli tàkkusaan jëm timis waxtu yooyu waxtu yi nangu ñaan la mu bokk ba tey ci waxtu yi nga xamante ni waxtu yi nangu ñaan la mooy boo déggee ñu not ba daaneel di xaar julli diggante boobu diggante nangu ñaan la mu bokk ba tey ci diggante yi nga xamante ni diggante nangu ñaan la bu demee ba asamaan si di wàccee ndox jamono jooju noonu jamono nangu ñaan la rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوم الى الصلاه يرحمكم الله